Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf li xew ca Bakel loole le réew mi quotidien xëyee tey muy fleuve Sénégal bi nga xamante ne kon mujj naa ball ba nangu yenn ci ay dëkkuwaay yéenekaay bi di xam ne ne kon foofee ca diwaanu Bakel bëri na ci ay village yi nga xamante ne toog nañu ñetti fan amuñu ndox ba ñu jëfandikoo waaye tamit ñàkk courant loolu tax na kon ba ndaw Soninke di ŋàññ taxawaay bi nga xamante ne ñii di état ñu ngi ko ci amal moo ne de foofee njiitu réew mi ci boppam gannaaw jëwriñ ji ñu dénk kaaraange bi réew mi ak ñeneen ñu ngi koy xarandi ni ki ëllëg ca diwaanub Kédougou ak li ko wër ngir taxaw ak wàllu ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo loru ci inondation yooyu le li xew ca Bakel moom observateur mu ngi koy duppee urgence humanitaire ndax géej gi di fleuve Sénégal mi débordé ba nangu dëkkuwaay yi yéenekaay groupe Futur Média bi di ñu xamal ni kon lu toll ci fanweer ak juróomi junni doomu aadama ñoom la géej gi ber ndax jamono ji mënuñoo génn laale ak dara xew ci réew mi ndax L'As Quotidien di yëgle ni état bàyyu leen ndaxte fas yéene naa génne lu toll ci juróom-ñetti milliards ci suñu koppar ngir wàllu ji ñi loru ci yooyu lay ay milliards yu bëri di ay chiffres yu ñu falsifié ci finance publique yi réew mi quotidien mu ngi xamal ni FMI dafa mel ni dëggal na li nga xamante ne moom mooy tolluwaayub réew mi ci ay jafe-jafe ci wàllu finance bis bi le jour di ko dëggal ne kon gannaaw chiffre yu gouvernement bi ci boppam FMI bind na ab lettre di xam ne ni kon déficit budgétaire bi ak bor bi nga xamante ne ñeel na diggante 2019 ak 2020 2023 lu ñu ci njortoon yépp waaye tamit li ci gouvernement ba woon yégle woon daanaka weesu nañ ko waaye nag jamono ji tembe FMI ci boppam ma ngay xaar certification bu Cour kont comptes donte dëggal na ni jamono ji moom environnement bi lu jafe la ci Sénégal Sud Quotidien di ko ci feelu ne FMI dëggal na IGF ci lu jëm ci déficit budgétaire ak bor bi nga xamante ne état bu Sénégal daf ko yore ci diggante 2019 ak 2023 source a jaar fa ne FMI dëggal na gouvernement bu Sénégal weesu na sax gouvernement bi le témoin dafa gis ni FMI FMI moom kii di Ousmane Sonko ci boppam la dëggal ba noppi mel ni ku weddi Macky Sall gannaaw nag li ñu dëggalee gouvernement bi ba noppi l'info yéenekaay mu ngi xamal ni kuréel Bretton Woods bi sàkku na nag ci gouvernement bu yees bi mu jël ci dogal yi ci war dogal bi Ousmane Sonko jël ni ki démb mu ngi ci Vox Populi nekkoon moom jiital Pastef sumb na ab campagne bu mag ñeel collecte de fonds ngir waajal campagne législative yi muy ab campagne utub koppar ngir financer seen campagne noonee la ko daal di xamle tamit yokk ci ni ci programme ciy xaar moo di ay ministre ak i naka noonu ñu jiite ay agence war nañ ci dugal seen loxo bu baax a baax ndax gën cee néew benn million la ñu war a teg maire yi ak yeneen responsable yi lu toll ci cent mille ndaw yi ak militant yi Sonko mu ngay xaar ci ñoom ku ci nekk mu teg ñaar téeméer li yëpp ñu fas yéene koo jëmal nag ci meeting bu mag ca Dakar Arena ni ki gannaaw ëllëg ci samedi gi lii moo tax kon libération gis ni Sonko dafa mel ni ku mobiliser at ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay militant yokk jamono ji ñuy waajal élection législative enquête quotidien moo ni jàngatee gannaaw bu mu gisee ni transhumance bi moom bëri na jamono ji te loolee dafa gis ni kon ñoo koy def yépp ay opportuniste lañu ndax seen mbubb bi nga xamante ne dañu ko simmi sol beneen donte ci ay jamono jubóow ñu woon benn yoon ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko tey ji ñu fas yéene kon dugg lëkkaloo ak fa mu mel ni jaaxal na lool suñu naataango yi mu mel ni sax neexul militant yu Pastef yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon di góorgóorlu ba yëf di métti ca Medina Wandifa ak feneen semaine yooyu les militants lank nañu ndaare ne duñu ànd def campagne ak transhumant yi syndicat yi fas yéene defante ak nguur gi lu ko dale wàllu wërgu-yaram wàllu njàng mi ak njàngale mi ba ci sax fonction publique Walf Quotidien mu ngi ñuy xamal ni kon front social bi ci boppam jamono ji moo yëngu mu mel ni kon état de grâce bi ñu mayoon Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay jeex na tàkk ñi jàppoon ni Ismaïla Sarr jeexal na ca Crystal Palace bi yóbboo ñu noppalu ndax réew mi bi ci boppam